sant sëñ Mbacke Daba Sarr bi nga xam ne moo waral lii tey man nag li ma war a wax lépp ñu fi war a wax wax ngeen ko sama wax moom mooy sant mbooloo mi rek amit lu may jéggulu ndax maa ngi jéggulu kilifa Mbacke Mbacke yi fi toog te lii du seen métier mosuñu koo def rus ma ak fonk gën ma fonk ak ma xam ne seenu taalibe la moo tax ñu toog nii ñu toog waaye du seen wàllu mosuñu koo def kenn mosu leen gis ñu toog ci góobu ba dañ fi tudd politique mais dañ fee toog ndax sama jëmm loolu li ñu def mooy cër bi nga xam ne moom la seen waajur wa joxoon sama waajur wa cër booba lañ ma jox moom lañ ma jàppee kon loolu maa ngi leen di jéggulu yow nga xam ne sëñ ndax njabootug sëñ Abdourahmane Mbacke gépp ngi fi toog njabootug sëñ Modou Mbacke gépp ngi fi njabootug sëñ Koso gépp ngi fi njabootug waa kër sëñ Cheikhouna ñëpp ngi fi kon maa ngi leen di sant di leen jéggalu ci toogaay bi ngeen fi toog ba nege ni ndax gépp nga fi toog sëñ Modou Mbacke mi nga xam ne moo ne Cheikh gi ànd ak Cheikh Ndiaye kàddu gi di taaw sëñ Mbacke Daba Sarr mi ngi nii toog te kenn mësu koo gis ci yu mel noonu mook sëñ Abdourahmane mais ak ñoom ñëpp mbàkk mbàkk yëpp kenn mosu leen a gis ci loolu kon bu ñëwee def loolu yàlla ak sama jëm man sama xol sedd na te xam na man la ma waxoon rek man diggee rek laa wéyee soxna si nag dañoo bokk lépp ndax toog naa kilifa toog mu wax ci yow lu bari kon xam nga ne noo bokk lépp ndax yaay dëkk bi waaye nag dénk naa la njaboot gi jigéen ñaa ngi nii gone yaa ngi nii na ngay def ak ñoom la ngay wax ak ñoom duma la ko digal yow xam nga ko loo man ci sa doole defal leen ko loo mënut te sa baat joti fa mu war a nga joti leen fa am na loo xam ni nag mënoo ko yow dong wax dëgg yàlla waaye li nga mën xam naa ne danga ko leen ko defal li nga mën danga leen ko defal waaye loo mënut na nga àggale sa yéene ci nga ko war ci nga ko war a àggale leneen li ci dolli fii ma toog daaw jéeg am na ñu fi jëwoon na dañuy seet mbedd yi war a godolu ma sëñ sëñ Mbàkke boole ma ak Cheikh Ndiaye kàddu gi ak sëñ Modou Mbàkke mii di taawam toog mi ngi nii xam na li ma wax waxuma rek di wax ci rajo bi naan ba fekk naa nangam ak nangam nangam dañoo boole mboolem kii ñu ànd natt ko bañ wax ne li ñu natt daañu ko def bu soobee yàlla natt nañ ba àgg fettoo ndax fettoo mooy daara ji xam ne moom la fi borom daaru njëkk a def ñetti téeméeri dongo yi fi borom daaru indi fettoo googee la ko fi yóbbu woon waaw tey damaa am mbégte ba daanaka mënumaa wax ndax olof njaay def ne nit mbokkam waaye ku teew fii xam ne nit mbokkam lii sëñ Mbacke Abdourahmane moo ma ko may moo tax ma mën a taxaw fii tey kon nag nit mbokkam waaye damay wax ne waa Daaru naa dalal leen seen xel dañoo wax ne dëkk boo fa amee ni jaay doo déggee ci mbedd mi man bi ma président wooloo am confiance ci man ne daf ma bëgg bu ma àndeek yow gañe Touba bi ma jógee ci ëtt daaru marnaan bi laa jëkk taxaw woote fi mbooloo man tey fii laa njëkk a taxaw woote fi ne damaa bëgg ñu ñëw jàppale président de la république xam ngeen lu tax ma njëkkee fii damaa xam ne bu ma njëkkee fii lu ma wut Touba am ko keroog bi ñu njëkkee woote bi ma tënkeeg président damaa ñëw woote wàccee ñetti téeméeri kaamil ak fukk ak ñett woo sëñ Mbacke Abdourahmane mu ñëw jàng xatnu ba ñaanal mbooloo mi ñaanal président de la république ak réew mi bi sëñ Mbacke daane leen taw bi sóob kon man xam naa kan mooy sëñ Mbacke Abdourahmane ba ñu jógee ca loolo ñu dëgmal campagne ma bëgg président de la république am ndam ci Touba ak li ko wër ci département bi ma ñëw sukkuraam ne ko Mbàkke yow yaay sama kilifa fii ma dëkke ma bëgg nag Mbàkke nga ñaanal ma lii ma dëgmal ma am ci ndam mu ñaanal ma ba noppi ne ma du ma yem ci ñaan gi dama lay booleek sama leet naab xare ndax gannaaw dangay ngay jëm xare dama lay booleeg leet naa ma ne ko ah Mbàkke kuy leet naa bi mu ne ma sëñ mën jóob ndax xam nga ko ma ne ko ah Mbàkke ma ne damay dégg turam rek mu ma danaa la woo woolu ko Dakar laa nekk Abdourahmane Fall mii woo ma ne ma ñëwal nga wuyu sëñ Mbàkke ma jël téléphone bi bu ma wuyu sëriñ bi man damay sukk ci suuf ne ko mbàkke yaaram lu xew mu ne ma damaa bëgg nga ñëw wuyu si ma ginnaaw saan wóolu naa seen mat jóob bu ngeen ñëwee danaa leen boole kon loolu moo ma fii samay tànk tey ma ñëw fekk ko ci këram gii mu boole ñu ba noppi ñaanal ñu kon bi ma jógee ma woo démb premier ministre ma wax ko ne ko sëriñ bi joxe na ndigal jox na sëñ Modou Diop ndigal ngir ñu ñëw ànd liggéey liggéeyal président Macky Sall fii ci Daaru Marnaan premier ministre ne woon moom mooy ñëw ba démb ci guddi la ma woo ne ma man de du mën a ñëw waaye seet naa seet sama xel waaye dama leen di yónnee seen mbokk seen doom muy sëriñ Abo Sall. waaye tàcc leen waay. ma ne ko nag yónni nga ñu ndaw lu mat ndaw. yónni nga koo xam ne fi nga ko war a yónni nga ko yónni. ñun suñu xel gën naa dalati. te jàpp naa ne day kanamu presse laay waxee mais man de gisaguma Touba mitin boo xam ne premier ministre yónnee na ci ndaw. defe naa c'est la première fois. kon xam nañ ne. président Macky sàll ak euh, euh, premier ministre Mohamed Dionne mm. xam na lii nga xam ne moom la Darou Marnane di peser ci Touba. Mm. kon na seen xel dal. Mm. président keroog bi muy déclaré ci Ila Touba bi 47 milliards yi. Oh. dafa mënutoon a tëb tudd Daaru Marnaan waaye ci biir 47 milliards yooyu nga xam ne ay tali lañ ko war a def ci biir Touba. Oh. Daaru Marnaan ak Ndaam ci la bokk. Oh. ba sa xew nga ci la bokk. kon na dalal seen xel.